de arrêt Kër Ngunda gis nañ mobilisation bi ak délégation bu yàññ bi ngeen àndal fii ngeen ñëw nag mooy xayra man ak sama frère ñu bokk fi nekk muy Basirou Faye di sama rakk man ma bokk ci APR moom mu bokk ci mburoog soow kon lépp benn la ki ñuy liggéeyal mooy le président conseil départemental monsieur Matar Diop ak ma Fari Ndiaye kon tey ñëw ngeen fii ci xaayira ñun nag mbooloo maa ngi nii fii moom yaakaar naa ne mokk na fii fii moom yaakaar naa ne mokk na ndax fii ngeen ñëw du benn yoon du ñaari yoon tàntal nañ fi wala def nañ fi jataay bu mel nii ngir jàppale Benno Bokk Yaakaar kon fii moom daanaka amatul lenn luñ fi wax li may wax nit ñi mooy jour vote yi muy le 23 na ba set dem fii ci usine xorom nga xam ne mooy suñ centre ñun waa Xaayira ngeen voteel maron beige muy bulletin bii ngeen gis ko muy bopp fas bi mooy tax ñu mën a am conseil départemental bi ndax conseil départemental bi suñ ko gañee dana gën a yombal suñu diggante ak président de la république waaye bu ngeen xoolee ba waa Diyoli club yi jël ko dana métti ndax Cheikh Mbacke këram a ngi nii ñu tout près waa koñ bi xam nañ ko ñemewu fee teg tànkam ndax digg na fi ba tàyyi lamp bii moo ne woon moo koy defar defarul dara lamp bii moo ne woon moo koy defar defarul dara kon dee leen moytu diwli club bi ku bëgg a jariñu da ngay ànd ak oto bi dem te bañ a dugg ci oto yu paan kon nañ jàppale Matar Diop mu gagné conseil départemental bu Mbacké amuñu ku dul bas ak sëñ Fall mii kese lañ am ku ko jàppal loo nekk ña nga ca ku ko jàppul loo nekk di mu ca parce que ñoom lu baax lu baax fii lañ ko yéene seen guddi ak seen bëccëg yëpp ci koñ bi la ñun ñoom rek lañ am xar lañu teg fii da woote ji barke Serigne Touba bas rek lañ am ak Serigne Fallou ngeen jàppal ñu ko bu baax APR nag am nañ ko waaw yàgg nañ leen a woteel yàgg nañoo ànd ak ñoom waaye nag xam naa bis ba jàmm danañ dem carte tànn carte bu baax wi muy maro bii dugal ko ca jàmm ne ñooyu Cheikh Bassirou mii ma fekk si fii nag day sama àndandoo lu mu nekk rek dama ciy boole bañ na tey jii damay def nangam balaa mu koo def dina ma ne ndeysaan ñëwal ñu dem fu mu nekk it fa laay nekk te ku képp koo xamante ne bëgg nga bëgg lu baax rek war ngaa mun a ànd ak ba Bassirou mii ma leen di wax ne leen le soir du 23 euh, janvier bi dina xam ne ñun ñii ànd nañoo ak Bass Faye ak waa APR pour ñu élire sunu ki nga xamante ne mooy Matar Diop ci kii bi léegi nag may wax ne yéen ñëpp na ngeen xàmmee kii bi bi nga xamante ne moo am ñu koy muy marron beige bi marron beige da ngeen koy xàmmee sóoraale leen ko ndax ñun amuñ dul marron beige buggee ñu boole ñu ci lépp nañu bokk nañu àndandoo votel marron ma di la xamal ne la nag fii ñu nekk am ngeen fi ñaar ñoo xamante ni wax dëgg fa yàlla yaafu suñ te ñu ngi tëgg guddeeg bëccëg di liggéey ngir coalition bi am ndam ki ci jiitu di sama rakk sama xarit Basirou Faye keneen ki ci topp di sama jigéen di sama lépp. di sama naa naataango soxna Mati mbay jigéenu bàmba kon ma fëri man duma jël benn engagement turu bi dama lay dalal ndax dama am ñeenti étape yoo xamante ni falaa jëm kàddu yi dama koy yemale foofu. kon yow bu may ñëw réew mi yow laa àndal la fa jëlee itam xam naa bu la waxee. <laughs> la ma fa la ma fa jëlee xam naa bu la bu ma la ko waxee di nga ree waaye ñu bàyyi noonu rek ba yàlla dogal nag ma gisaat ma fari mu am jom lool vraiment nekk ku ku responsable nekk ku wax dëgg yàlla euh, ku ku maanaam macha allah daal ndax nit boo ko miinee xam boo waxee ci moom yaa ko catu ma ànd ak moom nag ñu liggéey liggéey bu rafet. léegi nag yéen jigéenu Bamba yi ci koñ bi ci yéen laay ñëw ndax jigéenu Bamba am na fi base bu dëgër. ñu jiital ci soxna Fatou la ak soxna euh, Fatou Niang yéen laay wax au soir du 23 fi euh, au soir du 23 janvier na ngeen génn ngeen voté list bi massivement ndax ñu mën a am ndam lu rëy nag bureau xayra bëgguñu kenn kenn kenn jiituñu ndax ñun man Bassirou Faye Makhoudia Gueye dañ daan dëbb bureau bi ba mu mokk ñu lay ko ak tamit sunguf jal ko ku ne jël sa wàll. dafa dul mën a ñàkk ñu wax ko ndax dafa am ñu ngeen dëkkal ñoo xam ne dañoo wax ne ay candidat lañu man noonu laa koy tudde te wax ngeen léegi ne benn doléance bu ndaw boo xam ne si ne waxoon na dige woon na ko te defu ko ndax jàpp naa ne moom day dëkk ci zone bi làmp yi tey waroon naa leer nañ mbedd yi tey defe naa. fu waay taxawoon lu mu sori sori bu fa sa morom taxawee nga war koo xàmmee bu fekkee ne li muy wax ci moom dëgg la waaye nag yaakaar naa ne loolu honorable jëlagul kàddu gi waaye mel na ne tontu na ko déjà kon foofu seen xel mën na fee dal bu baax a baax fi may jëmee sama kàddu nag dañoo war a xam fi ñu jëm fan la muy élection yi nu jëm muy élection yi nga xam ne mooy municipal ak conseil départemental nit ñi xam nañu jombul élection mairie parce que li ci ëpp dañ naan yi mairie yi waaye en tout cas li ñu constaté ci Touba nit ñi xamuñu lan mooy conseil départemental dafa jot ñu xam lan mooy conseil départemental ndax conseil départemental banqaas la boo xam ne si ne ci nguur la bokk état mooy dagg ci nguuram lenn ci dénk ko département bi loolu mooy li nga xam ne si ne dañoo war nag taxawal jumtukaay bi nga xam ne si ne mooy fexe ba nga xam ne askan woowee dëkke foofa loolee mën a àgge ci ñoom li état waroon a def ngir département bi àggee ko ca ñoom mu jëm ci juróom-ñeenti bànqaas yoo xam ne si ne askan wi da ko war a xam bu fekkoon ne nag ñi nga xam ne ki nga xam ne moo fi nekk pendant sept ans xëy na def na la mu war a def bu ñu taxawee fii ci xayra ku ñu laaj da nga xam lan mooy conseil départemental waaye yaakaar naa ne fii est-ce que xam ngeen conseil départemental lan mooy njëriñam ndax xam ngeen conseil départemental lan mooy njariñam surtout yéen soxna yi nga xam ne si ne dafa am cër bu yaatu boo xam ne si ne conseil départemental daf leen ko jox ndax daf leen a war a aar yéen jigéen ñi. dëppoo nag ñun suñu programme comme niñ ko waxee dugal ci jigéen ñi bu baax a baax ngir aar leen ndax xam nañ ne jigéen bu fekkee ne jàppale nga ko na nga ko war a jàppale ndax moom mooy yilif mooy taxaw njaboot gi mooy dimbali borom kër yi maanaam jigéen ñi ñoo yor kër yi. loolu moo tax cër bi ngeen am ci conseil départemental ñu war leen a former bu ñu leen former ba ngeen am formation yi ngeen war a am ñu war leen a jox nag gunge leen ci ay financement yoo xam ne si ne financement yooyee bu ñëwee ci yéen da ngeen da ngeen a da a mën a taxaw taxawaay bi ngeen war a taxaw te loolu amul benn kuréel boo xam ne ci Touba conseil départemental nee na conseil départemental moo ko taxaw ba ëllëg mu am financement ba nga xam ne si ne am na li nga xam ne si ne moom la war a am ci taxawaay. soxna Anta Ndiaye mii jotaayam bii dafa am solo bu baax a baax ci ñun ndax moo kenn ci candidat yi seen kër yi ñoo ñoo dëppoo Serigne Cheikh Mbacke koñ ba mu dëkk soxna Anta Ndiaye mii moo fay bàjjenu gox tey mu bàyyi ndajeem yëpp ñëw ci ndaje mii fas yéene ànd ak ñun foog naa doy na sant yàlla. loolu moom bu ma ko waxee soxna Ndiob mii damay jël témoin këram njabootam buñ jaaxlee seen wàllu wér-gi-yaram ci soxna Anta Ndiaye mii la ñuy ñëw mu yóbbu leen hôpital. tey kooku tey bu fas yéenee ànd ak ñun ngir jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar kon mooy wane na Cheikh Mbacke du tous ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne jotaay bii du hasard ni ko soxna Mati Mbaye waxee yéen soxna yii 2019 maa ngi yéen a àndoon ñu daan fii ci Touba tey jii loolu laa bëggaat ni daane woon 2019 laa bëggee ñu daanewaat fii ànd ak liste Benno Bokk Yaakaar bi. ndax kat élection yii ñu jëm élection gox goxaat la da ngay fal koo xam mu dimbale la te liste bi ñii ci nekk xam nañ leen ràññee nañ leen te ñeme nañ leen ñooñu lépp lu ñu wax dinañ ko def suñ ko defutit ñun xam nañ fi ñuy jaar kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci quartier yi gën a mag ci Touba quartier yu ëpp ay politiciens waaye quartier boo xam ne ne defuñu fi dara gis nga fi il faut que je vous rappelle tout récemment tout récemment xayra dajale na 27 million def addition doo ci biir quartier bi 27 millions yi ñun ñii bi nekk waa zone 6 bii ak ñun ñi ñoo ànd dox ko ba mat ñaari député ñu ngi fi seen juróomi di demu ci waa ñooñu nee nañ bëgg nañ est-ce war ngeen leen a jox waaw mais yéen yéen yéen bu ngeen dofut yéen ñooñu laajte nañ fi 25 millions ngir yokk ndogam xayra seen juróomi dërëm demu ci. ñun ñii ñoo ko dajale yéen mbootaay yi suñu dërëm suñu nangam ba mu mat ba njokk suñu ndox waa ñooñu tey bu ñëwee ne dañoo bëgg ñu fal leen dafa war nañ leen est-ce que waruñoo bañ. kon nag nañ am fulla am fayda wooteel si benn bokk yaakaar bii honorable Matar Diop ak monsieur Mafari Ndiaye dem conseil départemental xayra jëm ca kanam ak soxna Mati Mbaye ak soxna Ndioba Mbacke ak Basirou ñoom ak ma Makhoudia Gueye ak soxna Awa Gadiaga ñooñu ñoo nekk ci liste bi te nekk doomi xayra waaye nag li ma ciy yokk mooy monsieur Mafari ñun góor lañ suñ xasee joxe suñu kàddu rek joxe nañ ko saa yuñ ko joxewul joxewuñ ko waaye buñ ko joxee dinañ def lañ war a def kon nag ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaax ne bis bu ñu yàlla mayee ndam ndam lu sedd guyu nañ ci jàpp na ngeen ci jàpp ndax xayra nag dafa war a amaat beneen reconnaissance ci dëkk bi ndax lii dama leen koy yóbbante soxna Ndioba yéen ñi jóge monsieur le maire ah conseil municipal yi sans conseil municipal benn bu dëkk xayra amu fi loolu c'est pas du tout normal kenn ku dëkk xayra nekku ci liste conseil municipal bi naam Serigne bee joxe ñun waa kër Sëñ Fallou lañ jébbal nañ suñ lépp Sëñ Fallou mais nag monsieur Latka am na ñu muy tànn ñoo xam ne ne moo leen di tànn ci propre gërëm nañ ci boole waa xayra ndax waa xayra dañoo bëgg a nekk ci liste yi di fekk fa ñuy nase ak fa ñuy nocce ñuy wax suñu doléance kon on lance l'appel population Touba ne leen ñun ñi ngi nii nekk ci dëkk bi fas yéene ànd ak notre coordinateur la liste Benno Bokk Yaakaar le soir du 23 incha allah ñun ñëpp nañ leen ko woote ñu am ndam. Benno Bokk Yaakaar am fi ndam ma fari dem présidence ak monsieur Matar Diop kon ñu leen di sant bu baax a baax bii daal bu leen ko moyale carte yi na ko ñëpp jox carte yi incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ma maa su ñu taxawee di wax ne lampe bi sëñ Cheikh Abdou moo ko diggee woon ne dina ko defar te ba léegi defaru ko loolu gàcce la ci moom waaye gàcce la ci kuñ naan xayra nga dëkk nekk député à l'Assemblée nationale. ñun nag jël nañ ko en charge jël nañ ko en charge dinañ fi def ñaari làmp làmp yoo xamante ni lampe de darnier génération lay doon incha allah jël nañ ko loolu Basiiru bu ko neexee bu subaa mën naa ñëw ñu jox ko ko loolu engagement la buñ jël ñun duñ dig kenn ku xam fa nga jëm waroo amuk jaaxle te ñun fi jëm xam nañ teg nañ programme boo xamante ni. bu ñu yàlla mayee ñu jot ci conseil départemental bi xayra dina ci gis boppam bu baax a baax jigéenu xayra dina ci gis seen bopp ndax programme bi ñu teg programme bi ñu teg ci ñetti ponk lañ ko tënk programme bi biñ koy defar jëliwuñ benn cabinet mu ñuy defaral programme ñun ñu nekk ci biir liste bi ñoo tëju lëlu xool li nga xamante nii département bi soxla na ko ñu tëgg programme bi programme bi ci ñetti pàcc lañ ko tënk bi ci jiitu mooy gunge ndaw ñi yaakaar naa ndaw ñi fi nekk ndaw bawol bawol doo gis benn ndaw bawol bawol bu yaafuus amul benn ndaw bawol bawol bu yaafuus te président de la république teg na programme boo xamante ni mooy programme xëyu ndaw ñi programme boobu mi ngi dox ñu ngi ciy inscrire ñu ngi am xëy di liggéey conseil départemental bi teg nañ programme boo xamante ni ndaw yi nga xamante ni am nañ xëy ak ñi amul xëy ñëpp ñoo ciy gis seen bopp ndax ndaw lu amagul xëy dañ koo war a wutal xëy ci programme bi bokk na ci ubbil dañ leen ubbil suñuy bunt conseil départemental bi dina ubbeeku ba bépp ndaw bu mën a doon boo amee projet dinañ la ñëw teg la ci yoon wi accompagner la ba nga am financement. ñaareelu poñ bi mooy aar jigéen ñi ak mag ñi yaakaar naa lépp looy def te boolewoo ci jigéen ñi safewul ndax jigéen ñi ñoo yore kër yi jigéen mooy doxal am réew jigéen mooy doxal ab dëkk. kon buñ tegee programme aar jigéen ñi aar mag ñi yaakaar naa programme boobu doo leen ko gis fenn ci benn candidat bi ci topp mooy naatal gox yi naatal gox yi naatal gox yi nag lépp la ëmb ndax fii gis nañ ni ni mu mel fii ñu taxaw budutoon làmp yi mënoon nañoo bañ a gisante kon laaj nañu éclairer ko ba mu leer naññi day bokk ci programme bi ak environnement bi nga xamante ni gis nañ ne dëkk bi soxla na ko loolu nag man duma ma jug ci di ci sensibilise nit ñi pour ñuy jëmbat ay garab nañuy jëmbat ay garab ci buntu yi buntu kër yi environnement liy sàmm suñu alam loolu daf cee bokk ñuy jëmbat garab garab dafa baax ci réew kon naa ngi sensibiliser population bi yëpp képp ku ko man na nga jëmbat garab ci sa buntu buntu kër duma jeexal nag te waxuma ci Basiiru Fay ndax Basiiru wax naa ko ko nee naa ko man dama laa fonkal sama bopp ndax njàmbaaram yéen a ko waxal seen bopp yéen ñim dëkkal Basiiru man su ma ko fekkee ci hôpital bi duma xam lan la fay liggéey ndax lépp ma nga ci dama naan ko yow bas looy liggéey dépositaire nga wala lan nga ndax lépp ma nga ci nekk ci soxla yi nit ñi nekk ci soxla yi waa xayra yi kon buñ ñëwee fii ci buntu këram nekk ci ay mbokkam duñ ko mën a seedeel duñ ko mën a ñàkk a seedeel loolu jàmbaar la parti bii mu nekk aussi kenn yóbbu ko ci fulla la ciy doxe ak fayda ñu jox ko ci cër bu mat sëkk mu am ci ay responsabilité yu wér yu ñu xam kon liñ leen di wax mooy yéen waa Xayra jàppaleen seen doom ji xam ne doom ju am fayda ngeen am soxna Mati Mbay aussi noonu laa mën a waxe ci moom ak responsable yi fi nekk yëpp bëgguma guddal kàddu yi ndax guddi na te dafa mel ni programme yi bari na mais bas am nañ mbégte te xayra suñu xel dal na fi vote bi ni muy demee leer na ci yéen ndax fii ku fi falu waa xayraa la fal kon waa xayra liste baa ngi nii mooy beige marron bi la 23 janvier 18h bu jotee bu jotee suñu ubbee urne yi dépouillement bi pare ñu gis liste yëpp nekk marron beige ñu ñëw fii ànd ak ñoom Basiirou fay ñoom soxna Mati Mbaye ñoom Basiirou ñoom dem ziare ji soxna Ndiobo Mbacke ñu feete suñu victoire au 23 janvier 2022 maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf.